Modou Moustapha Fall tànn sëñ Cheikh Jëmb Fall nii. si ay général de Baye Fall yàlla na ko fi yàlla yàggal bu baax ak ak sëñ Cheikh Xadigee rakkam. sëñ Modou Moustapha Fall. monsieur Modou Moustapha Fall. ci mm-hmm. sëñ Cheikh Jëmb moo ko taxaw. di liggéey guddi. Mm-hmm. di liggéey bëccëg. Lamp Fall mel na. Lamp Fall mel na ba noppi sëñ Fall teg ci ab sant. sëñ Amady Khady Fall nee na. fii yoon wii xaw a dee du fi may kenn dara dee wette fii maye dara. luñ la yombalal ci lislaam kooku nga koy bëgg a xañ. suñ fal ñu bu guddee nag. bu guddee nag. turu yàlla yi bëgg naa ko digg ca kaw. <laughs> ak guddi gi guddi gi. nañ liggéey ak ñi tudd yàlla. moom ñi ñi tudd yàlla nga tudd yàlla ñuy liggéey di liggéey. turu yàlla suñ fal da ko fanaan digg ba asamaan set. ci ba yegg. Hmm? mu tudd ko maam Cheikh Ibrahima Fall. baabul muriddiina loolu nga xamante ni waa mam maam Cheikh Ibrahima Fall la jagleel ngir ñu taxawu liggéeyu sooroor bi waaw loolu la jag ñu taxawu liggéeyu sooroor ba taxul lañ nekk sa bàyyi dëgg la waaye suñu saa Fall la ni nanu mm. wutal ñaari jëwriñ mu mu te na bokk ci moo ko digal mu bokk ma doon ay doomam mo mu tànn ñaari doomam dogguma la Baye Moussa <laughs> dégg naa keroog euh, eh. bi sëñ Fallou waxee loola eh, daa daa di wax ne miraas naa sama def ci jumaa ji mm. sëñ Mourou Moussa daf ne ne ku nekk la ngay sasoo na ko wax dégg naa kenn ku nekk sasoo waaye bi mu egsee ci moom bi ñu ko joxee ñee na ko yow loo sasoo daf na man sasoo naa jumaa ji feeg mu fa du am dara <laughs> waaw ndeel gén gi dineen <laughs> eh. bi waaw sasu sas wii ma tobbi ren mm-hmm. nag kenn ku ne wax la nga mel mun si Moustapha Fall mm-hmm. waaye lu waaye wax na mm-hmm. su suuf jalawee suuf jalaw mooy bu gerte ñoree ëpp dugub soo ko indiwul dina la fekk si kër sisir la la fekk secret si sur la. kenn ko ne sosoo. mooy alamaan rek. alamaan. Mm-hmm. ñii juróomi junni. Mm-hmm. ñii fukki junni ñii nangam ñi gën a ëpp. Mm-hmm. suñu taafaale ma téeméeri junni ak ñaar fukki ak ñeenti junni ci xaalis booba téeméeri junni mi ngi mel rek. Mm. ma leen leen da suñu taafaale man sosoo naa limub yonent yi. yéen ñëpp wax ngeen ba bind li ngeen sosoo képp koo xamante ni nag suuf dalaw na nga jaay sa ndey. te defo ko daal fekk sa kër lo fa nekk danga ko jël jaay ko ci jumaa yi ca lolou la wéy kon loolu jaayante ah ba ba musa sek seigne Mamour man dal man man yemuna rek mhm. xam nga ngassum ray dégg lim ci wax manam mhm. lu tollu ci 1500 personnes waaw personnes ak djuroomi téeméeri domi adama mhm. lu tollu ci 52 km ñu taxawu ko si ñetti étape loolu moom yaakaar naa ni si histoire moom bu ñu ko doon réviser histoire yi nga xam naa ni ñu bare am am am te dara warulu ko lu dul taxawal lii ñu taxawal di lay mhm. te te te mhm. ba si mu taafaal waxee si Moussa Mbacke loolu mhm. ni ko man mu taafaal li ko tàmbali njëriñ ba Tuubaa fontre fukk fañ def ak weñ ba loolu tënku def teniiraat nañ beneen réunion waaw loolu boobu réunion nag moom mbooloo ma bariwul ci kër commandant bi ci njëriñ lañ ko ba huis clos lañ ko def waaw loolu la ko tëj waaw ñu ko teg dañ ko tëj ci biir kër Kumba loolu bàyyi màkk faala ma ko wax ma ngi ma fekke waaw ba nga xamante ni maanaam euh, gouverneur général ñëw na ak tubaab yi ma la waxal gouverneur du Sénégal commandant de cercle bi nekk Njaaréem chef de gar bi nekk chef de bi nekk Njaaréem ak monsieur Balabé mi directeur du chemin de fer ba ñu ñëwee

tijji ci buntu kër góor wuti wuti mbedd ma. bi saamam sa fal ñëwee fekk nañu ab la wàcce nañu croisé bi ñetti ginnaaw wàcce nañu croisé bi. saamam fal di ñëw ànd ak njaboot bi ñu yëkkati baatub laa ilaha illallah bu màgg bi. tey boobu ñu ngi yëkkati bàyyi sooda Sall. Hmm. yaa ngi traité Nour Diané ma Fall Ndiaga laa ilaha illallah di ba mu ñëwee nag ba jub kii bi nag fekk kii garde yi nga xam te ni. dañoo salone ci biti. Mm. daal def alerte. Mm. alerte. alerte kañ. waaw oh. sant Fall dem rek. c'est vrai bëggoon naa nga riimal ñu bàyyi soo Fall bi de ni ñu ko doon riimee man ñu barkeelu si. <laughs> <laughs> alerte. sant Fall di dem rek. c'est vrai. ñu ni alerte sant dem rek. Mm. ba nga xamante ni diggante ak bunt bi war naa toll ci ay. lépp ñu ngi ànd ak lépp ñu ngi si rek ñu ngi ànd ak sikar si ñu Cheikh Fall taxaw si mut sa mbàkk ngi bi Cheikh Fall taxaw te koroosi nañu bunt bi te du taxaw hmm. ah foofa nekk suñu yaaram def na fi effort ah. suñu yaaram bay ah, waaw hmm. def booba di fekk dem na armée ba ñëw hmm. ba mu xamee ne Cheikh Fall du taxaw te du bàyyi dënnub Cheikh Fall ba tegu ci bunt bi te du taxaw suñu yaaram dafa xaaju rek ba mu ñëw ba mu tëggee bunt bi ëw rek ba mu ko ñuy tëll croisé bi ko croisé woon. croisé bi moo fi tax mu mu boole ko puus bunt bi. teel croisé bi fi mu puus bunt bi. moo la mel ba baax croisé bi nag moo jëm suñ ba mu fi moo jëm suñ yaaram ci ëpp jën. waaw taw jëba tëppee ko. na ko de. ba ba jëba tëppee ko dara jënd saw. li dox diggante garde yi mu ci kayam. ak fa réunion ba ne ci ëtt bi fi fi góoru général la ak suñu mënu sàmbaake seen yaaram dara jël leen dàq bàyyi màkk faal ne bu taate ni ba ba ba mu ba mu fees rek lu daw si sa am si fa jub rek gars yi euh, euh, ci kër si jib ba ba mu ñëwee ba taxaw na la ñu nii ñëpp noppi mu sukk nuy suñu mënu sàmbaake réunion boobee foofee jàppat nañu ni ak juróomi téeméer ndax booba Sénégal yi fi nekk ci mbooloo bëriwut duñu ko yaa jàpp nañ ne duñ ko mën a am ndax booba de ba ëpp ko mhm. ñu jàpp ne junni nit ak ngeen ko mën a am sant si Moussa Mbacke la si Moussa waxal si rafal wax ko nag mhm. daal di ko ne bu ñu demee ba yegg mhm. su ñu naree ñàkk nit ñu ko mat man Ibra Fall léko ko li ko tàmbali njëriñ njëriñ ba dara bi doo leen sotti ay waxambaane. ñu jàpp si digg suñu bàmbal. <laughs> kooku sunu maam Cheikh Ibrahima Fall suñu Mamour. xam naa ne faaw mu dikkal ñu si jàmbaar jooju nga xamante ni lu ne def.